ku jël tariqa nga ne man maa ngi bokk ci kojub suufiya waaye man kër gii moomo day ci laa aju nee na loolu du ci yow ca yàlla la ndax yàlla dogal na nga dem ci bërëb bu la neexee fa ngay dem bu la neexul it fa ngay dem fi nga dem wërsëg nga ci kooku Kila la yàlla boole it mom tamit wërsëg nga la ci mom keneen it ne man it tamit kër gi moma day falay aju keneen ki tamit ne man tamit feneen la am ku taxaw ne man kër yoy yeb sama yon neul ci ben kër ci yooyu man yalla rek doy ma way bo xoolee fiñu jëm ñoom ñëpp bokk jëm ci benn bërëb ndax ñoom ñëpp benn mbir la ñuy sàkku mooy ngërëmu suñu borom bi subhaanahu wa ngay sàkku ngërëm sa borom kii di sàkku ngërëmu sa borom kii di sàkku sa ngërëmu borom nee na xam nga kay la gën a jekk te rafet mooy ñu bokk ndey ak baay loolu rek mooy li ñuy wër ci àdduna bi نتي نك الاسلام لول لا سخلا الاسلام لي مو وخ لول لا سخلا تي كين كون ييت لولا وارون نك سا تخواي غا وخ وخ جي غا جف جف جي nga dox dox bi tamit neena bobu nak bi nga waxe ni julit nga neena nak nek julit gi nak dadi feñ ci yow